xoolee dafa am ci loo xam dafa bokk ci ay principe budgétaire principe budgétaire yi mooy principe de sincérité du budget principe de sincérité du budget moo teg aussi tawa avant tout ay préalable yuy permettre nga def évaluation ci budget bi évaluation dafa nekk évaluation xam te nii ça permet nga dugg ci terrain bi xam exactement li xew on a une commission fiscalité locale ça fait trois mois quatre mois six mois ñu ci terrain bi ils ont recensé l'ensemble des terrains des terrains boo ko jëlee rien que les terrains rek c'est cinq dañ ko su wàññi ko soo ko defee ak à un taux de cent mille francs mooy frais de bonnage yi loolu rek c'est cent millions y aussi tamit euh, la fiscalité locale bi nga xam ni tax nañ ko ba mu am un excédent moo tax sax d'ailleurs ci troisième point bi on va voter benn autorisation spéciale parce que trésor sur la situation d'exécution jox nañu ay montants yoo xam ne ëpp na sax liñ prévoir woon waxuma liñ exécuté woon l'année dernière mais liñ prévoir woon donc loolu aussi tamit bu ñëwee dollu si avec la nouvelle réforme euh, les contributions euh, économiques locales CELVL ak CELVL vraiment mu nekk cent millions boo ko boolee lépp à peu près dafay tourner un milliard zéro trente trois mu nekk un budget de fonctionnement loolu noonu nag bu nekkee deux milliards quatre cent yi mooy li nga xam te si mooy découlé ci li nga xam te si mooy jóge ci en quelque sorte ci l'investissement loo xam te ni c'est les un milliard cinq cent cinquante de PNDL de PACASEN et aussi acte trois de la décentralisation. ci ci budget bi dañ ko ko ci cabinet du maire est-ce que loolu non soixante dix pour cent du budget dugal nañ ko ci investissement or que loi bi dañuy au moins vingt cinq pour cent ñun on de vingt cinq à soixante dix donc cela veut dire ce que cela ñëpp gis nañ ko ñëpp constaté nañ ko ñëpp wax nañ ko. donc on est dans la régularité dans la légalité muy loo xam te ni ñeneen ñiy wax nag amaa dañuy wax lu leen neex rek mais boo seetloo carrément tu vois que ni 70 pour cent du budget ñu ngi ko inscrire à yor liggéeyu gàmmu gi donc xam ñëpp gis nañ ko wax nañ ko nee nañ depuis bi ñu commencé nekk tool ba léegi mosuñu am résultat gàmmu ba àgg 30 millions. ren d'après le maire dégg ko on a plus de cent neuf millions avec des maigres moyens avec des situations avec avec des situations liggéey bi surtout liggéey collégial Coskas nekkul rek partenaire boo xam te ni c'est juste pour bi dañ ko soxla dans le domaine de la santé dans le domaine de l'environnement dans le domaine aussi tamit ci xadra bi ci xorom bi yëpp pour que mu ñoom ñu mën au moins gérer yenn place yi pour ñu mën ci ànd mu ci liggéey donc gàmm du rek aspect financier bi li soxla mooy pèlerins yi mën a ñëw mën a am euh, vraiment un espace un cadre qui lui permette de ñëw daf ay ziaraam et cetera loolu mooy esprit gàmmu mais pas trop se focaliser sur l' esprit financier ñun loolu moo nekkoon suñu objectif et di remercier encore une fois conseil municipal bi nga xam te ni ñoom xam nañ projet bi gis nañ ni rien n'est encore plus beau pour Tivaouane te ñu ngi ñaan yàlla budget bi cette fois-ci bu déwénee incha allah mu nekk ay budget plus de cinq milliards. waaw ah, man maa ngi tudd Mbaye Ciss Thiaw ñu gën ko xam ci Lopez conseil municipal chargé de l' environnement du cadre de vie et des ressources naturelles. waaw vraiment tey moom dañoo ñëwoon vraiment pour nekk ci vote du budget. nga xam ni vraiment man damay gis ni moom mooy li nga xam ni moom moo war a doxal commune de Tivaouane bon donc ma am ci am njàngat boo xam ni wax naa ko mooy que budget bi dafa toll ci foo xam ni luñ ci war a mën a def rek dafa war a bénéficier pour la population de Tivaouane luñ ci war a mën a def rek dafa war a lekk lu xam ni dafa bénéfique à askan wi donc ci ñun foofu la ñu taxawee indi suñuy xalaat ak suñu wax que vraiment budget bu toll nii bu ñu demee ba koy defar waa Tivaouane war nañ cee gis seen bopp war nañoo gis ni li ñu tax ñu dégager benn budget bu toll nii war naa nekk loo xam ne dañ koy day jëmbal Tiwaawan muy doon ci cadre yu nekk parce que tey nii am na yoo xam ni nit ñi soxlawuñu par exemple li nga xam ni dañ koy def ci loo xam ni dafa invisible nit ñi li ñuy mën a apprécier mooy li nga xam ni dafa visible lu dem ci mbedd yi lu dem ci encombrement lu dem ci ay matériel yoo xam ni dañ ko war a am tey nii Tiwaawan toll na foo xam ni war na mën a am engin war na mën a am euh, ñaari camion mën war na mën a am ay matériel am boo xam ni comme ñun dañ koy soxla toujours lu mel ni gàmm lu mel ni ziar yooyu ci budget bi lañ ko war a jënd teg ko dañoo war a defar fu mel ni par exemple ay euh, nu ma la ko mën a waxee ah voilà ay parc yoo xam ni fa la ñuy yóbbu suñu matériel fa ñuy def yëpp def lu mel ni ay fourrière créer ay police municipale xam nga vraiment man. Euh, dama gis ni budget bi daal ça doit être au profit de la ville du loo xam ne dañ koy wax nii rek en chiffre ah wax ko ci xaalis seen du feeñ ci dëkk bi donc euh, vraiment tey on a accepté de voter le budget di xool euh, fii ak déwén qu'est-ce que ça va euh, parce que par exemple bu ñu génnee benn budget de milliard c'est amul lenn loo xam ne waa Tivaouane gis nañ ko ni lii kat mairie bi bu ngi koy def création de jardin création de de de banc public création de leneen yoo xam ni Tivaouane dinañ gis ni dafa naan parce que Tivaouane dëkku gan la dëkk boo xam ni de moment à l'autre nit ñi wàcc Tivaouane c'est pas n'importe où man foofu laay waxee nit ñi Tivaouane c'est une ville d'exemple boo xam ni nit ñi dañ fay war a ñëw di ñu naw donc euh, vraiment li ñuy xaar ci jóob tam mooy li ma koy wax rek Tivaouane fi muy lay xaar mooy nga defar dëkk bi ñëwuñu parce que yow la wala parce que lii mais yaakaar gi ñu am ci yow ba jox la ko moo tax nga war a taxaw pour Tivaouane defar c'est foofu la ñu taxawee di ko ko accompagner nag bon vraiment euh, li mu tontu tam ci question yi mooy li nit ñi soxla tout soit clair. tout soit réglé ci context boo xam ni kenn du ci am doute wala affaire yooyu man daal franchement boobu laa gisee. man la Matabar Seck je suis conseiller municipal en même temps je suis le coordonnateur de Rewmi commune de ci kon donc ce 26 décembre ñu ngi woon fii ci salle de délibération de la mairie de Tivaouane c' était ordre nag premier point bi wala boog deuxième point bi moo doon vote du projet de budget tey comme ni ngeen ko xamee rek budget bi jóge na de moins de deux milliards romb na trois milliards mu nekk na loo xam ne nii boo koy dégg yow daf lay jaaxal ndax fan la ñu war a jëlee toutes ces ressources là pour mën a fexe ba xam ñu exécuter boobu budget personnellement man j'ai voté le budget parce que j'ai toujours rêvé que ni Tivaouane a grandi Tivaouane mérite un budget qui dépasse le milliard mais li ñu defee sóobi nag de un à trois vraiment ça posait problème mais d' après les explications du maire et de du du de municipale ay niche ñi ngi fi yoo xam ni nii mën nañ parce que am na ci ay taxes yoo xam ne daawuñu ko jël comme ñu mel ni dans les marché yeneen gi des moom mooy euh, taxes yi sur le bâtiment ainsi de donc mu nekk yoo xam ne nii xëy na ak fonds de concours yi ñëw ak fonds de comment dirais-je la euh, de euh, c'est ça donc yooyu yëpp bu ñëwee xëy na tey jii buñ ko boolee dina mën a fexe ba nga xam ni li nga xam ni soxla nañ ko ci budget bi dinañ ko mën a exécuter donc man leen man j'attends le vote du compte administratif de 2023 pour pouvoir faire ba def maanaam li nga xam ni moom mooy euh, méngule seet ba xam ñun li ñu voté tey est-ce que réellement réaliste na wala réaliste mais d'après ni ñu waxee jàpp naa ni suñ ko doxalee ñun ñëpp ñu mettre vraiment la ceinture ñafe ko liggéey ko yaakaar naa ni loolu war ko koo mën a war nañ koo mën a. waaw man la Marème Aïdara présidente conseillère municipale présidente commission gouvernance locale participation citoyenne. waaw ginnaaw ci loolu tey ci jot ko ci ci ndax waaw bu ñu sukkandikoo ci monsieur maire c' est quand même très ambitieux mais moom nee na am na ay pexe ndax lii da koo jàng man ko xam ban anam la jaar pour exécuter ko nee na tëbul tëb rek ni 3 milliards. que Tiwaawoon la xam na li Tiwaawoon soxla te xam na fu ñuy jaar pour lijjanti loolu te ci la nekk bu dégg bëccëg subaa ngoon ndax dafay am ay industrie am fi ay euh, mbir yoo xamante ne tey bu ñu ko gëstuwee li ñu yoreel maire bi rek bu ñu ko génnee incha allahu rabi je pense que c'est un budget qui est très non euh, ambitieux mais je pense que bu ñu góor góorgóorloo avec tout le conseil ni ma gisee affaire yi je pense que le maire il a envie de réussir li nga xam ne moom lay def dégg ko ci allocution wax na ko waxaat ko répété waat ko nee li muy def xam na ko te fi mu bëgg a yegg xam na ko te li mu nar xam na ko donc ñun du ñu def lu dul approuvé ko voté ko ba pare nag euh, déglu ko parce que moom nee na borom pexe la lépp loo xamante ni mën na ko ci dina ko mu réussir moo tax on a aucun problème avec les trois que c'est quand même normal que Tivaouane am parce que dayoo dëkk bi moom ni dëkk bi bu ñu woon dix milliards la am budget ñun mënuñoo yéem mais fan lañ ko mën a jëlee moo doon inquiétude yu ñu bëri te maire apaisé na ci xool na wax wax naa ñu ñu ngi koy déglu nag wax dëgg yàlla voteel nañ ko budget bi à l'unanimité presque parce que boo dee xool benn abstention ak benn contre rek moo ci nekk ñi ci des ñëpp dañoo voté budget bi ce qui veut dire que presque moo voté budget bu Tivaouane aujourd'hui nous sommes fiers de ça et puis ñu ngi toog di xaar lan moo. waaw maa ngi tudd Degen Ndiaye di conseillère municipale. ah tey daal bu bi moom ma si gis gis naa ni am na amélioration bu rëy parce que ni ko fekkoon ci moyen d'un million moyen d'un milliard yóbbu ko ci trois milliards et quelque attente bi tamit li ma siy wax rek mooy am nañ sacerdoce parce que gis nañ ci waawoon fi mu tolloon ñu xool ni que budget bi ñu amoon c'était du ma wax c'était insuffisant mais ki dëkk bu toll ne ci waawoon nekk la cité de Maodo fexe nañu tey ba yóogi yégal nañu niveau bi aj nañu baar bi tuuti attente ma siy wax rek mooy liggéey bi mi ngi kanam ndax am nañu ay réalisation yu bëri nekk en cours d'ici deux mille vingt quatre ñuy botewaat beneen euh, budget incha allah yaakaar naa ni dinañu am amélioration yu bëree ngi nuyu Tivaouane euh, di ci jiital xalif général de Tidiane euh, di nuyu presse bi nga xam ne tey ñoom dañoo mobiliser wu ñëw ngir fekkee session bi nga xam ni liñ ci jublu mooy valider li nga xam ne mooy le budget. Euh, deux mille vingt trois donc euh, tey li ñu fi gën a seetlu mooy la mobilisation exceptionnelle des conseillers ñi nga xam ni sax daaw ñu ñëw tey teew nañ ci session bi pour wan leen wala natt li nga xam ni mooy dayow budget pour une collectivité territorial donc budget bi maanaam ay prévision la maanaam yéene bi mi ngi toll ci trois milliards yoo xam ni daanaka soixante dix cent yëpp ay investissement la maanaam ci at mii ñu jëm bëgg nañu xar-xaru kanam moom Tivaouane changé c'est ça la véritable mission en fait loolu la askan bi di xaar ci ñun moo tax li ëpp ci alal bi ñu jagleel ko li nga xamante ne ni mooy l'investissement investissement ci domaine de compétence yu bari donc ñi ngi xaar en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Tivaouane ñu gën a mobiliser wu pour accueillir en tout cas li nga xam ne moom mooy investissement yooyu parce que dëkk bi ña fa dëkk ñoo koy defaral seen bopp le maire il doit rendre compte dañ ko dénk mission lañ ko jox ñun dañ koy accompagner te am nañ yaakaar ni Tivaouane dina changer yaakaar la am et puis dañ koy accompagner ci yéeneem et que gis nañ fi changement en terme de vision gis nañ fi changement en terme également Euh, d' ambition parce que budget bu ñu jëlee un milliard daanaka neuf cent millions yóbbu ko ci trois milliards loolu ambition mënu ko wees donc dañuy xaar dañuy suivre dañuy yaakaar li ci des nag mooy taxawaay la laajte incha allah li ci war. maa ngi tudd Alioune Badara Mboup doon conseil municipal en fait tey dañu doon def lu am solo muy euh, déjà vote du budget euh, mu doon tamit loo xam ne nii Tivaouane yëpp ñu ngi ko doon xaar ñu gis nag mu doon budget boo xam ni déjà lañu ci wax somme yi bëri na trop. mais li ñu si njëkk a mooy déjà li ñu war a def ci investissement yi mu am solo trop muy 70 pour cent loolu vraiment lu ñu apprécier la ñun mais ñun fi ñu amee problème rek mooy sincérité bi ci chiffres yi parce que Tivaouane ñi ngi woon ci di budget boo xam ne boo jëlee li nga xam ne mooy compte administratif bi ñi ngi amoon huit cent et quelques kon ban magie la ñu war a mën a def pour egg trois millions et quelques ñun dañu jàpp que ni sincérité budgétaire dafa nekk un principe kon lépp lu ñu def rek dañ ko war a euh, def ci amin boo xam ne ni dinañ xam ne lii ëllëg si biir bu ñu taxawee ak waa Tivaouane dinañ xam ne lii suñu capacité financière mën na ko boo xoolee ci budget bi daf ci am benn ay rubrique yoo xam ne yu bëri ci état Sénégal lañ koy xaare te ñu xooloon ci année yi ay deux cent millions lañ ñu doon jox des fois du ko mat sax léegi ñuy xaar ci état Sénégal mu ñuy jox un milliard kon euh, loolu aussi jàppuñu nii déjà lu war a mën a nekk la surtout que déclaration de politique générale bu Amadou Ba ñëpp dégg nañ ko ñoom ñi ngi wax naan ay année sociale euh, jéem a def ay transfert d'argent kon investissement ñoru leen kon ñu jàpp nañu ni ñoom Tivaouane fi mu wekk budget nekkul foo xam ne am na ndëgër laay bu fekkoon dañoo am ay industrie ñu ni industrie yi redevance yi dañu ko war a jot wala ñu xam ni les taxes municipales euh, les municipaux fii dinañ ko fa jëlee indi ko fi bu boobaa ñu mën a xam ni yàlla le de la sincérité budgétaire loolu nag bi ñu ko waxee indi na coow lu bëri mais préfet bi bi ngeen ko déggee wax na rappelé ne ñett ñi nga xam ne nii noonu la ñuy defaree budget te ñaar yëpp dafa ñu conforté peut-être Tivaouane euh, ñi defar budget bi ci beneen principe bi la ñu dem euh, te loolu aussi ñun jàppuñu ni actuellement que ni euh, xeebuñu Tivaouane waaye jàppuñu ni mën na nekk parce que waxoon nañu fi gàmmu gi ni déjà bëggoon nañ ci un milliard mais ñu gis ni tey soixante quelques millions la ñu la ñu la la ñu am kon ñun inquiétude yi ñu am koo xam ne nii gàmmu bi nga xam ne mooy la le le principal bi nga xam ne moom mooy événement phare ci dëkk bi mënuñu ci am sax cent millions euh, amuñu ay industrie benn bi ñu wax ñu ni carrière la ba léegi te tegoogul suñu loxo indeegul dara kon ñun jàppuñu ni euh, ay 3 milliards mën nañ ko am te 3 milliards boo ko xoolee tey boo demee Thiès amul loolu boo demee tey yeneen Touba mi nga dem ci 4 milliards te ñooñu seen seeni seen i seen i seen euh, capacité financière ñoom dañu ko mën a teg bët moo tax ñun nag voté wuñu budget bi dañoo abstenir ndax jàpp nañu nii Euh, bu ñu ko voté dañuy comptable ci loo xam ne nii mën na nekk naxe lay doon wala benn annonce politique lay doon ñi ngi xipp suñu bët di xool et budget bi nag voté nañ ñoom voté nañ ko mais bu demee ba ñuy def na compte administratif bi bu boobaa ñu xool ndax ñoom ñoo ñu yee wala yooyu ñu en tout cas loolu moo fi nekk moom la ñu euh, defagum ci waxtaan euh, di gërëm aussi toute la population de Tivaouane sur la confiance mais aussi à la presse bi nga xam ni ñoom ñooy relayer les informations nga xam ni citoyens actuels. sàmm dèjà man wax naa si lu bëri benn bi mooy euh, député Tivaouane la ñaar mooy dañoo euh, xaawi li nga xam ne ni moom mooy ay warwaam warmaam ndax euh, lii ay droit am muy immunité parlementaire ñun population de Tivaouane ñoo ko votel bu fekkee ni justice daf ko war a convoqué dafa war a am une procédure boo xam ni procédure bu normal la procédure boobu gis nañ ni respecté wuñu ko logique bi mu nekk bi ñu nekkee mooy confisquer li nga xam ni nii moom mooy les suffrages des Tivaouanois te ñun loolu duñu ko accepté duñu ko nangu en tout cas ñu ngi déglu justice te yaakaar nañu justice sénégalaise au moins cette fois si dina sauver la face pour libérer notre député Massata Samb bi nga xam ne nii ba léegi ñu jàpp nañu ni euh, na ñu doon représenté ca assemblée lu am solo la. am na nag euh, ay manifestation ak ay programmes yu bëri yoo xam ni déjà population Tivaouane ñu ngi koy organiser ñuy woo population yëpp ñu ñëw yëglu wane seen bopp la coalition aussi au niveau national. wane nañu euh, seen naqar par rapport ak li nga xam ne ni mooy rapport des cours des comptes génn te ñooñu tey sont des intouchables mais tey koo xam ne nii dafa défendre son guide religieux même bu fekkee ni am nañu ñu bëri ñu d'accordul ci acte mais je pense que ni lii droit am dañ ko ko war a respecter mooy lever son immunité parlementaire avant ñu koy dem yóbbu jugement. manifestation bi c'est confirmé parce que déposé nañu. lettre d'information euh, def nañu enquête yi donc ci préfet la yem préfet la des te loolu nag je pense que ni préfet amul droit di interdire une manifestation pacifique ndaxte bu fekkee ni ñaari conditions yu war a réunir mooy tey trouble à l'ordre public munu ko wax waaye aussi mënul wax ni amul ay force de l'ordre kon nañu jox suñu autorisation euh, ñu woo population bi yëpp wan ni leen Massata Samb a le soutien de son département